di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu boroom rek mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dëkkee dotti waamem xewal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala sahabati ajmain ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci bindab tafsir alquran alazim borom bi defaloon ñu tawfiq ba ñu yegg si woon ci laayay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 وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا <clears throat> إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لا يويو ñaar كيلا ak juróom ñett ba fanweer ak juróom ñett di juróom benneelu bind ci tafsiru suratul isra mbokk julit yi alquran day mooy téereb yàlla bu màgg bi mujjee wàcce ci kaw suuf mu jaare ci ab yonent ngir mu ci gindi ay jaamam ku ko topp gindeeku ba faw waaye ku ko toppul alku ba fawu téere bii di alquran mbokk julit yi day nooyal aka tooyal xolub aji gëm yàlla téere bii di alquran kenn du ko fonk teg ko ca kaw lu dul kawe ba faw kenn du ko sobantal desal ko gannaaw lu dul da ngay des gannaaw ba faw noo ngi ñaan sunu borom an yaj'ala alquran alazima rabia qulubina wa nuura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina mbokki jullit fukki aay yi ñu ñar a jël dar su day aaya la yoo xam ni kenn ku ci nekk ci ñun na ko def ak teewlu na ko jox ak teewlu su noppee mu xool yépp aajowoo jëfe mu jéem ca lam ca man aayaat yi mbokki jullit ay teggin lay wane ci sa digganteek sa boroom waaye ay teggin ak jëflante sa digganteeg nit ñi lii nag moo lay wan foorub alquran ndax léeg-léeg nga dajeeg ay ayat yoo xam ni danga nga naan yii moom bu doon téere bi ci lii rek la yem alquran mat na te wax na dëgg borom baa ngi wax ni di joxoñ ñi nga xam ni yàlla dénk na leen as ñu am tuuti moyen sunu borom ni wa imma tu'ridanna anhum ibtigaa'a rahmatin min rabbika tarjuha su fekkente ni yàlla dafa la nattu nga am ay moyen am ñoo tane war leen di dimbali sunu borom bu ni góorgóorlu nga di leen dimbali ndax yàlla kat moo tànn ñi ko soob ci ay jaamam jox leen as tuut yow mu jox la lu bari yàlla mënoon naa jël lu bari loolu mu la jox jox ko loxol keneen fa yanzura kayfa taamaluun mu xool nooy def yow kon yërmande ji yàlla am ci yow ba jox la lu bari yërmande jooju am ko ci ñi nga tane ba di leen dimbali rawatina ñi nga xam ne ñooy say jege ñaale ndax mbaax say jegeñaale ñoo ca gën a yey su fekkee yàlla nag dafa dogal nit ñi yaakaare le teraanga ba ñëw diis la soxla te mënoo koo faj su boobaa saw gàntal sax na rafet allahu akbar moo tax aayaat yi mbokk jullit yi aay yu mat a def taxaw seetlu la même ki ñëw di la ñaan wala mu di la leb wala mu yaakaar ci yow wala nga di mbokkam wala mu gis ni comme sutura nga wala mu yaakaar ni sa aajo moom aajoom bu fajuwut ci yow it suturaam dafa xawee koo mu ñëw di la diis soxlaam sunu borom ni même boo ko ko mënta fajal na nga ko ko fajalee ay kàddu yu neex mu delloog yaakaar bi maana au lieu que nit ki ñëw rek nga gàntal ko gàntal bu diis yaakaaram di tas waaye man nga ko wax waxin wu am yaakaar ah nangam ji de tey moom fekkoo ko fi waaye nag xanaa ñu xaar fii ak suba bu dee da nga yaakaar fii ak suba wala ginnaaw suba wala bu dee yaakaar ginnaaw suba wala ak weer wi dee comme ni ko nit ñi wax wala bu soobee yàlla bu ñu jógee fii rek dinaa ci taxaw jéem ci lu ma ci man xam nga loolu moom ka ñëw aajoom fajuwut waaye nag cinquante pour cent ci kiis wam àndaloon wadd na xam ngeen yaakaar dafa fort ndax buy ñibbi jàpp na ne bu ñu ko suba suba dana sotti ginnaaw suba dana sotti booy waxit na nga wax lu mën a nekkin nag timit bu ko defee moom su demee dundee yaakaar yaakaar ji ngay yaakaar yàlla mooy waral yàlla dimbali la ba nga mën a faj aajo jooja su ko defee borom xam-xam ne nañ soo ko defee di nga am tiyaa bay ku yéene def lu baax te dut koo def moo tax moo ni wa imma tu'ridanna anhum saa boo demee ba nara wane gannaaw maanaam ñàkk joxe ñàkk faj aajo ji ñuy sàkk ci yow su dee ibtigaa rahmatin min rabbika tarjuha bu dee yaa ngi yaakaar yërmande yàlla yàlla defal la xéewal ba nga mën a faj aajo nee na fa qul lahum na nga leen tontu qawlan maysuura wax ju yomb te nooy te neex bu dee yow da ngaa yaakaar yërmande yàlla dimbali la yokk sa wërsëg su boobaa booy tontu na tontu bi neex ah wax dëgg yàlla de da ko fee fekkul waaye boo ko fekkoon kenn gënu la cee yey ah fi mu toll nii de tey ci xat-xat la ma fekk waaye yaakaar naa buñ mu ñoon ba weer wi dee day ñu jéem ci lu luñ man ah xam naa dama lay bañ a joxu àpp rek muy muy dañ de waaye daal jàppale ne suñ jotaay bi buñ fi jógee moom sama effort yi ma am yëpp danaa ko ci def ngir aaju jooju faju bi maanaa benn baat boo xam ne soo ko waxee daal xelam dina xaw a dal tuuti te it dana ne yow miy dimbale ko te yéen ñun ñëpp xam nañ loolu aajo koo dem ci di ko faj ci moom même bu la gàntalee joxu la waaye wax na la luy nuru ab dig sa xel dana xaw a dal te nag doo mer ca delloo gan la delloo waaye la nga gis ñoo xamante ni wax dëgg yàlla daanaka da ngay cippatoog tëj leen buntu beeg bu sonee bu kenn tijjeeg ana diw ñu ne nee leen ko nekku feek wala nee leen ko day nelaw ak wala fan yi di jàmbat jàmbat goo xam ne subhanallah da ngay gis koo xam ne sunu borom da koo teg musiba fekk musiba yi moo ko yóbbee ba moom ndax innal balaa muwakkalun bil mantiq da gis koo wax mu ne hee fi ne kay fan yi dafa xaw a dëgër fan yi kay moom yoruma dara dara dara te fekk yàlla xam ne ne mi ngi yor dara dara dara nga ni fan yi yoruma dara dara dara sa gaaf ak làmmiñ topp la bu ko defee yàlla nangu la nga yore doo dese dara dara parce que yaa ko yóbbee sa bopp mbokk jullit nañuy sant yàlla jàmbat de ba bu mënta ñàkk ba nit ki rëcc la def ko su pare na jéggalu suñu borom waaye borom bi tabaraka wa taala day wax dëgg yàlla li ñu defal ci ay xéewal bari na rëy na sunu borom mu ni bu dee ci wàllu joxe it nag wala tajal yadaka bul jël sa loxo bi def ko maglulatan mu nekk lu ñu lonk ila unuqika ci sa ndodd loxo bu damm ci loos déedéet sunu borom mu ni loolu baaxut wala tabsutha bul ko tàllal kullal basti tàllal ba mu ni ñareet loolu mooy lan sunu borom nee na bul ŋot bul nay da ngay gis koo xam ne loxo bi ca ndodd ga la ko lem maanaam du joxe dara la bëgg a wax koo xam ni daanaka dara du ko joxe loolu lu bona bona bon la loolu sunu borom da koy tere subhanahu wa taala waaye tamit nag bul def comme ni ko ñenn ñiy defee maanaam nga xamante ni yow loo am rek joxe nga xam ni yow say aaji boobu sax doo ko mën a faj say njaboot sax doo man a fajal si aadéer ah, loolu nag tamit kenn santu la ko nag moo tax gis nga équilibre bii ci diine l'islam rek nga ko mën a fekk même sa alal ji dee ci joxe bul nay sax tekkiwul ni li nga am lépp da koy joxe nga toog tey booy jàng nag dund sarafu saalih ñu lay wax ñoo xam ne ñoom lañ amoon lañ joxe xëy toog ah lan def lu baax la waaye tamit dangay xaar ba xam man nga comme nit timit nag ndax bu fekkee fa mu toll ci imaan ba di ko def toll goo fa ragal naa boo ko defee mën nga caa bëgg tiyaa ba jëlee ci réccu kon yëgal ni dañuy tere nga not ba joxe nay waaye dañuy tere tamit nga tàllal sa loxo tàllal gu ëpp sunu borom mu ni boo ko defee fa taquda da ngay mujj nekk maluuman di ku nuy yedd waaye mahsuuran di ku mujj tasum yaakaar maanam koo xamante ni dafa dem ba lam doon séentu lépp dal di yàkkeeku maluuman nekk ku ñuy yedd waaye mahsuuran nekk ko ay yaakaaram yàkkeeku ku ay yaakaaram yàkkee loolu nag mbokk jullit yi mooy dañoo bëgg jullit bi muy dépensé yonent bi sallallahu alayhi wa nee na misaalam waaju nay ji ak waaju am alal ji ñu ngi mel ni ñaari nit yoo xam ni kenn ku ci nekk dafa sol mbubbam weñ mbubbam weñ nee na mbubb maa ngi tàmbalee ci seen dënn seeni ween fam toll di yéeg jëm ca baat ba nee na kiy jël alalam di ko joxe moom di ci dimbalewaate ñamtane nee na saa buy génn di joxe rek mbub mi day gën a yaatu di gën a yokk di gën a jot xam nga loolu de na ngay génn di joxe mbub mi day gën a yaatu di gën a yokk di gën a jot waa ji nga xamante nii moom joxewut nag nee na mbub mi day gën a xat di gën a seere ci moom allahu akbar yent yàlla bi nee na amul benn bis bu ñuy xëy lu dul yàlla day wàcce ñaari malaaka ci kaw asamaan kenn ki naan allahuma yow yàlla aati yàlla na nga jox munfiqan kii di dépensé alalam ci jaami yàlla yi xalafan lu wuutu lam ramp lam amoon allahu akbar te malaaka bu ko waxee day am di diw mii nga xam ne diw dimbali na diw junni may na kële sept mille fayal na ke ordonnance am defal na ke nangam yow yàlla allahuma aati yàlla na nga jox munfiqan kookee xalafan lu remplacé lam joxe est-ce que xam ngeen ni mbokk jullit joxe day yokk misaal bi ma koy joxe mooy wollim dugub boo demee ca àll ba baykat yi bu ñu faro mbaa ñu tex seen dugub ba noppi bu dugub ja demee ba màgg ba ñu xotti ko xotti bu njëkk bay ko mbay mu njëkk dañ cay toppaatam gopp def li ñuy tuddee wolli gis nga booy nay naylu nga seen dugub ji sëq nga naan su ma ko wollee dagg ko xam nga wolli mooy wàññi ko maanaam cari garab cari cari dugub ji su fekkente ni taatu dugub ji dafa nekk fukki car nangam nga fell fii cos fee loolu baykat yi xam nañ ko loolu la ñuy tuddee wolli nga pip fee fikk fee juróomi cari yëpp nga nga dindi ñaar ya bàyyi fa ñett wala nga dindi ñett ya bàyyi fa ñaar gis nga ñaari nit ñu digaalee tool kii wolli kii wolliwut baal ba bi tëb góob jot <laughs> subhanallah gis nga kii wolli woon dugubam day am gub yu rëy yu dijji pepp ma fees ko del waaye ki nanguwul woon a wolli dina sax de kenn du ko weet dina sax waaye gub yu sew ruuj lay am lii may wax nii xam naa ko ndax def naa ko ba taay def naa ko ba taay ay at yu bare bare bare bare bare bare maanaam wolli ki ko def mooy ëpp dugub te moo ne kay wolli soo ko fekkee da nga naan kii day yàq dugub ji fekk yàqul de ndekete alal noonu la mel li la yàlla wërsëgal lu mu néew néew wa mimma razaqnaahum yunfiquun sunu borom ni ci li leen xool mimma ci li leen waxul alal ju bari ji de waxul junni yi de mimma razaqnahum est ce que yëg nga ni kon même sa cent franc yi ci mimma razaqnahum la bokk cent franc ci mimma razaqnahum la bokk fi mu nekk nii sa cent franc yi boo yëgee ni juróomi dërëm yi mën nga koo téq joxe ko wala fukki dërëm mën nga koo téq joxe ko yëgal ni loole insha allahu dana dugg ci bunt bi yent yàlla bi nee na wattu leen nay nay bokk na ci li alagoon nay ak bëgge bokk na ci li alagoon ñu jiitu woon nay la woon nay ga digal leen bëgge ñu daal di bëgge bëgg nga digale ñu dog seen mbokk ñu dog seenu mbokk dog mbokk ko dugale ñu nekk ay saay-saay ñu jaaree fa tàbbi sawar kon mbokk jullit yi ab jullit dafay góor góor lu lu mu man ci yéwén ci li ko yàlla jox da ngay dégg ko naa koy man kay bu ma yàlla defaloon ay teraanga kay naas nangam ak nangam ah kon li nga jot a yore duy teraanga yow da nga yore li nga yore di di séntu lu ko gën a kawe yow sa fukk ak juróom yi mënoo cee defal yàlla dara yaakaar nga ne bu la yàlla joxoon juróomi junni di nga ci def dara tus nga ci def tus doo ko ci def ku mënta jox juróom fukk ñaar fukk àqam boo amee junni doo ko jox àqam waa ji day tàmm bu amee fukk man koo xaaj boo amee ñaar fukk man caa dimbale boo amee téeméeri man caa wàññi li la yàlla wërsëgal ku néew nga di ci comp di joxe loolaay war a bis boo amee lu bari di nga joxe waaye saa boo déggee ku naan bu ñu yàlla defalee teraanga bu ñu nangam bu ko yàlla defalee teraanga tus la du def tus du ko def kon borom bi subhanahu mu ni kon su boobaa da ngay mujj nekk ku nu yedd mooy boo nayee def nga lu bon waaye nag booy joxe ba joxe li nga am lépp nag wax dëgg yàlla tamit nag dangay ngay mujj nekk ku nu yedd waaye nekk koo xamante ni ku ay yaakaaram di tas la mu yàkkee ndax su boobaa mën laa jural fitna kon nag digg doomu rek lañ bëgg ci joxe sunu borom mu ni inna rabbaka sa borom yàlla yabsutu rizqa <coughs> mooy tallal tallal wërsëg subhanallah baat bii de fu ma ko romb ci alquran dana ma yéem lool donte alquran sax lépp a yéeme gis nga wàllu wërsëg seetlul yàlla bast la wax bast mooy tàllal gis nga basang gi basan gi fi ne pour nit ñi mën caa julli da nga koy lemmi tàllal ko ba mu tàlli xam nga basang gi bi mu lemoo dafa tuuti waaye bi ñu ko tàllalee rek ci la ubbeeku daal di am pour wan la ñu la yàlla subhanahu wa ni muy joxe wërsëg joxin wu yéeme la mooy da koy tàllal yaatal wërsëg lool benn waaye def na benn calcul bu yéeme waa ji nee na fi ne kenn ku ci nekk jàpp nga ne amoo dara waaye ba nga juddoo ba tey calculal li nga fi lekk ak li nga fi fajoo ay millions yu dul jeex la da nga ko yëgul pour ñun dañu yaakaar ni fi mu nekk nii pour nga ami teraanga da koy def ci sa poos mbaa nga ko ci sa compte banque mbaa ko subhanallah loolu amul njëriñ du loolu mooy njëriñ bi fi mu nekk nii benn waaye ngi boo xam ne trente ans dong la dund trente xam ngeen trente ans ku ko dund guddoo fan mu faatu gis nga bis ba mu juddoo ba 30 ans yi mu am nga calcul bi mu feebaree lim fi fajoo bi li mu fi lekk li mu fi naan li mu fi yëy ci gémmiñam gi lamset yim fi watoo yére yim fi sol dàll yi mu fi am ah subhanallah la ilaha illa allah da ngay gis ni waa ji waxuma la millionnaire waaye tem nga gis ku nekk milliardaire fi mu ne nii ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk jàpp ngay doo millionnaire ay millionaire lañ de peut-être nekk guñu ay milliardaire waaye ay millionnaire lañ parce que bu fekkee mbirum am am rek la ba nga juddoo ba tey li nga fiy lekk ci wërsëg wi la bokk li nga fi sol ci wërsëg wi la bokk kenn ku ne calculel ba nga juddoo ba tey ñaata dàll nga ma sa am ñaata yére nga ma sa am man de mënu ma koo xam wax dëgg yàlla at mi dong ñaari at dong mënoo xam ñaata dàll nga ci am ci diggante bi yére yi li nga ma sa fajoo ndox mi nga doon naan boisson bi loolu lim rek ci lu ñuy lekk xaalis di xoolal loolu ci wërsëg wi la bokk te it xel moo tax ñu jàpp ne wërsëg mooy monnaie laa ilaha illallah yow sa xel mu neex bi da nga yaakaar ni du wërsëg sa xel mu neex mii su waay man yàlla mënoon naa def nga ne kum naxandum di niroo kum dof boo xamante ni boo ne waw na mu ni tooy na yàlla loolu sag la di la ko defal ah sa kattan gi nga àndal mën a yenu mën a sëgg mën a sigg mën a julli loolu ci wërsëg la bokk di da nga yaakaar loolu du wërsëg sa bët yi loolu du wërsëg ah noonu nga koy limee yu bare bare bari yoo xamante day saan wërsëg la xel mu neex wërsëg la xam-xam wërsëg la am am wërsëg la yaatu doon wërsëg la rafeti ci ko wërsëg la lépp ci wërsëg li la bokk sunu borom nag mu ni inna rabbaka sa borom yàlla yabsutu rizqa mooy tàllal wërsëg li man yashaaw ku ko soob wa yaqdir moo koy xatal tamit yaqdir mooy xatal mu ngi gis wa man qudira alayhi rizqu fal yunfiq ma ataahu llah ku yàlla xatal wërsëg buy joxe dépense da joxe lam am gis nga mbirum wërsëg mbokk jullit di lu kéemaane la fi mu ne nii mënoo yaafusa yaafus ba li nga war a am doo ko am mënoo njaxlafa njaxlaf ba fam lu dul sa yëf est-ce que xam nga ni li war a am ci kaw suuf yàlla bind na ko balaa muy sàkk àdduna lu tolloog juróom fukki junniy at cinquante mille ans yow diw doomi diw ak diw ne mille neuf nangam li nga war a am ci àdduna sunu borom bind na ko cinquante mille ans avant ngay ñëw ci kaw suuf ma nga ci teg ca fan ko denc gis nga àdduna lu mu bari jaxasoo jaxasoo guerre mondiale dana fi am première un guerre mondiale numéro deux nu mu tuddati yooyu yëpp fi lay bàyyi sa wërsëg bi gis nga amut benn xew-xew bu fi ma a jaar ci adduna ba faagaagal lu suñu borom ni lii ma war a nekk sa wërsëg déedéet gis nga lum la yàqal fekk yaa ngi dund rek gëmal loolu daa bokkul ci wërsëg moo tax mu jóge loolu daa ñëw ba pare bokku ci moo tax musiba bu tàmbee sa kaw gëmal noonu la baax baaxee gis nga fi mu nekk nii bu sa place bu lakkoon mbaa sa uh, kër gi màbb mbaa sa loola daa bokkatul ci wërsëg bi dafa war a dem te léeg-léeg bu la suñu borom di jox day jël la fa nekk andil lu ko gën a baax gis nga borom bi subhanahu wa taala at mi nga nekk deux mille dix sept bii ngeen nekk mille quatre cent trente huit hijré bii ngeen nekk sunu laylatul qadri bii passé keroog lanu renumé defaraat affaire yi war a am ci at mi yëpp fiiha yufraqu kullu amrin hakim gis nga mille quatre cent trente huit hijriya deux li nga ci war a lekk li nga ci war a naan ñaata litre yi ndox nga ci war a consommer ñaata litre yi boisson nga ci war a naan ñaata goro nga ci war a yëy ñaata dàll nga ci war a sol ñaata yére nga ci ñaata junni moo war a dugg sa poos bi ah dinañ la sàcc nangam dinañ la tafu nangam sa nangam dana yàqu sa nangam dana lakk sa nangam dana réer lépp bindaat nañ ko réglé waat ko ci guddi gi maanaam bindoon nañ ko waaye yeesal gi mooy bit année bi budget annuel bi fiiha yufraqu kullu gis nga lii boo ko xamee subhanallah da ngay noppalu teel teel jékki rajax rajax jéeg jaare ko foog suñu borom jéeg gën a lut ak wor ak sàcc jël yëfi jàmbur ak yooyu yëpp ndeysaan daanaka fajul dara boo ko jëlee am nga ca bàkkaar te amaan na doo ko jariñoo mën naa réer ci say loxo mën nga dee bàyyi ko fi mën nga koo jël fajoo ji ko ah moo tax yéen tamit wa ajmilu fi talab na ngeen rafetal ni ngeen di wutee wërsëg. gis nga yàlla mooy tàll wërsëg wa yàq yàqdir moo koy moo tax koo gis mu am wërsëg yàllaa ko ko jox ku ñàkk yàlla moo ko xañ waaye nag da yaakaar ni am wërsëg day tekki ni moo gën ki amul wërsëg déedéet mbir mi kenn du ko nattee foofu yàlla dana la jox wërsëg fekk musiba la dana la ko jox fekk daa ci yow dana la xañ fekk musiba tax mu xañ la waaye dana la xañ fekk lu gën ci yow la yàlla nag mooy ki xam ñun ñoo xamut sunu borom yàlla subhanahu wa mu ni yàlla day yabsutu rizqa li man yasha wa yaqdir innahu moom suñu borom kaana moom dafa dañut di nekk musut di dañ di nekk bi ibadihi ci ay jaamam xabiiran di ku dañ ci kumpa basiran di gis lépp dañ gi mu dañ ci kumpa moo tax xam nag ku ay million jekk ci yow ak ko ay milliards jekk ci yow gis nga fi ne sunu borom dafa séddale wërsëg <coughs> séddaliin bu maandoo maandoo maandu ki am million ki am milliard ki am billiard ki am junni ki am nangam kenn ku ca nekk la nga tollool yayoo ko rek la la yàlla jox ndax mooy allaamul xuyub yonent yàlla bi nee na sallallahu seen borom yàlla nee na am na ci ay jaam ñoo xam ni dara du leen jagal lu dul am moo tax yàlla jox leen am na ñoo xam dara du leen jagal lu dul ñàkk moo tax yàlla ñàkkloo leen kon gis nga yàlla ni mu ko defee noonu rek la waaye nag yow sañ ngaa ñaan wërsëg waaye foofu maa ngi ciy wax ci benn fiq bu bu gàtt mooy gis nga wërsëg ki koy ñaan yàlla na ma yàlla may alal ju bare bare bare bare loolu topp leen ñaani sunna yi ngeen xool lu dul ñaan nga yent bi ñaanaloon anas borom xam-xam bi wax ma yent na ko ñaan ak sirmaali bu dul riwaaye boobu c'est très rare nga gis kuy ñaan wërsëg di ñaan lu bari déedéet lu lew lu teey rizqan tayyiban gis nga yooyu lu teey lu lew yooyu waaye ngay ñaan affaire bi bari maanaam du bari waay gi lañ soxla parce que bari waay gi mën na ñëw nekk alkane samedi bi passé maa ngi koy nettali ci benn muhaadara ci wane ni gis nga mbir mi alal nit ñi dañoo foog ne maanaam alal mooy tax yëf yi jag waaye alal taxul mu jag de bokk na ci li may joxe misaal gis nga fi nekk ki waru kat katam bu rafeta rafet dem ba ca digg àll ba affaire bi ne karaj paan xamut lu mu doon gis nga bu ko mécanicien bu sol yére yu tilim yi mu <laughs> fekkut bu soobee yàlla kon mu xam ne yëf yi ndekete foo toll rek am ko la mën a jariñ gis nga loo am am am am alal alal ji doo ko jël di ko lekk nii déedéet da koy jëfandikoo ci luñ mën a lekk donc su fekkee juuma ci nett li Angleterre la wala boog benn ci réewu yéefar yi am na fa benn waay boo xam ni ci ñu ëppoon alal bal sax ko ëppoon alal ci réew mi ci li ñu wax xam nga ne ku dem ba ab gouvernement bu amee problème mu crise yow lay leb si kooku xam ngeen bari na xaalis bu dul Angleterre xëy na beneen réew la ci réew yi alalam yeggoon na ci gouvernement bu ñu amee crise moom lañ doon leb si kooku moom bu leen ma laaj lu mu am kon xam ngeen ni bari na xanaa kon mooy xaaru na ab jamono benn bis dafa xëy comme kër gi mu amoon daanaka xaw toll ni toll ëpp na pale pale xam ngeen ni koo xamante ni mën ngaa yenn Ndakaaru gontu Amérique suba nga dem Italie ginnaaw suba nga dem France ginnaaw suba nga dem Espagne wala nga yendu fii léeg fii sax da ngay nit koo xam day jékki jëm yàgg ne mu takk ay bagages am maa ngi dem France affaire bi mel ni suba mu dugg ci biir coffre fort am bi jàng ca gannaaw bi mu duggee néeg bi la ca nekk ci ay milliards man duma wax sax milliards xam nga di ko ay milliards kay la ñuy wax kenn xamul nu tool toll yorul téléphone kon mënut a woote bu yuuxoo kenn du ko dégg. te nit ñi xamuñ ni ma nga ci biir ma ni fekk maa ngi ko doon nettali ci waxtaan wuñ doon def ci wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ma ñu ne gis nga kooku bu nekkoonum julit mu toog toroxlu foofa sum waaye xaw ma day jàpp xaw ma day tiim mu julli ñaar rakk keroog lay xam ne inna allaha ala kulli shay'in qadir waaye dub julit fa la toog xoolal lan moo gën a metti nga tiim ay milliards nii mu di ay këyit këyit doo ko lekk këyit doo ko lekk fi ne bu doon ay boyeti or la or bi doo ko lekk xoolal loolu ni mu bëri nga toog di ko xool nii te munoo muy xiif di xiif ay fan ba ba xiif di ko bëgg a rey ba mar di ko bëgg a rey xam ngeen nu mu def aw këriñ la jël mu bind ci miir bi ki ëpp alal ci àdduna bi mi ngi nii tey di dee ci kanamu alalam mu di ko xool te xiif a ko rey kon xam leen ni alal du dara loolu la bind ak këriñ bi ñu demee ba fu ñu ñu dajji fi mu am ci alal gëstu fu ne di gëstu ba agsi foofu fekk ko dee na ba nëpp foofu ba métti ba saxe ñu gis fa mu bind ca miir ba ki ëpp alal ci réew maa ngi nii di dee tiim alalam te mënu koo jariñoo kon ndekete alal du dara comme yéefar la woon ilaaha bi xoolal lii nu mu méttee may leen xoolal kii bu doon ab jullit la bu xam yàlla ke nga xam ne ama yujibul mutarra ida daahu wa yaksifu suua ki nga xam ni foo nekk lu mu ruqe ruqe ruqe boo ko ñaanee moom suñu borom wuyu la boroom bi mu ni yàlla day ku dañ ci kumpale nag xam na ñi yeyoo ak ñi yeyowut waaye suñu boroom kuy gis la boroom bi mu ni wala taqtulu awlaadakum bu leen rey seeni doom xashyata imlaaqin ngir ragal ak ñàkk nahnu ñun yàlla narzuquhum ñooy wërsëgal gone yooyee ngeen di faagaagal wa iyaakum ak yéen ñii gis ngeen ñaari yoon yi mu ci wax nax narzuqukum wa iyaahum nax narzuquhum wa iyaakum borom bi mu ni bu leen rey seeni doom ngir ragal ñàkk bu jëkkoon nit ñi dañ daan rey seeni doom rawatina ay jigéen ngir ragal ñàkk parce que njaboot gu bari boo leen amee doom loolu dool doo nangam léegi nag façon rey woo xewi na bàyyi ba mu judd nga dog koy gas suul mooy wa isal ma udatu suilat léegi lan moo xew kii moom day fexe ba du am doom yu bari fekk yéene mooy ragal ñàkk day am bàkkaar day am bàkkaar waxuma day am bàkkaaru rey nit dama day am bàkkaar laa wax ma ngay fekk pour doom yi buñ bari ngir ragal ñàkk mooy jubluwaay bi day am bàkkaar kee moom doom ji ëmb nañ ko ba nopp waaye fexe na ba avorté ko yàq ko ngir ragal ñàkk day am bàkkaar ku rey nit kee nag moom bàyyi na ba doom ji juddu mu daldi koy rey gas suul yóbbu ca poubelle ba dugal ca foos ba jur ko hôpital ba noppi roccee ko guddi ndànk dem bàyyi ko ca hôpital ba ngir ñu yóbbu ko crèche mbaa yóbbu feneen gis ngeen seen réew mii li xew lépp kenn mënu ko wax am na yoo xamante ni daanaka yow da nga koy xam rek ni cell ndax du loo xam rek la wax ko waaye ay mbir a ngi xew yoo xam ni boo ko yëgoon ci ngay xam ni alxuraan alxuraan moo yéeme alxuraan ñëpp lay waxal nekkati boo yaakaare ni arab yaak yéefar ya la ko doon waxal ba léegi mi ngi am ragal ñàkk yàlla ma ndax narzuquhum doom yooyu di ñëw maa leen di jox seen wërsëg li gën a yéeme mooy gis nga nit daa mënul seetlu rek am na xeeti wërsëg yoo xamante xale bi day indaale wërsëg xanaa xamu leen ni gone gi ñëw yow boo defoon seetlu rek waxuma la ay moom lan la ko yàlla jox ak dina gudd fan ak yooyu waxuma ko waaye yow boo amoon ak seetlu rek da xam ni gone gi day indaale wërsëgam ndax diirab bi nga takkeeg soxna ba tey diirab bi soxna si ëmbee ba tey am na fi xéewal yu la fi suñ borom jox yoo xamante ni bi sababi haada la sabab sii la yow yaa ko xamul ndax yàlla du la lu mu def rek dala koy expliqué soxna si man na fee feebar am na xeeti ordonnance yu jafe yoo jënd yoo xamante ni ci ndimbal la mu jóge feneen loola ci wërsëgam la bokk dañ ko dëxëñaale ci sa biir wërsëg pour mu ñëw ma la nag bisub juddoom bisub ngénteem est ce que am nga xeeti xéewal yoo xam jox nañ la ko ci sa bisub ngénte xéewal yooyu fi ne boo ngéntewuloon du ñëw du ñëw mukk ah. mukk mukk mukk déedéet daa war a ñëw de waaye dañ koo teg fañ ko teg di xaar ngénte la fee ngénte woo du yegg si bala xam ne fee ngénte woo du yegg si dem fi nga céetal fi te waroon na waroon xaar ngénte rek bis boo fi céetalee di ñëw boobu ah boobu du ñëw bokk booba ngénte rek moo tax muy xaar moom moo tax gis nga borom bi subhanahu wa taala ku yéeme ay mbir la wërsëg woowu day xaar ba ab àppam jot ak dat dat dat baag xew-xew ba mu daal di ñëw moo tax boo seetloo ci doxalinu àddina sax da ngay gis ni boo embauché boo takkee soxna sa wërsëg day gën a yokk waaw waa addina ñu mën loolu waa kon fekkee rabb borom addina nag waa addina yëpp seen rabb nag boo marié sa wërsëg day gën a yokk boo amee benn doom sa wërsëg gën a yokk sa salaire boo amee ñaari doom gis nga fi ne réew yi gën a avancé ba ñun ñii ci la nga xam ñu ngi ci geen gi sax daanaka noo gën a bari njaboot gën a bari nangam dañuy jël en charge jël say doom jël say nangam jël sa nangam waaw yéen yàlla ni mu bëri yërmandeeg ni mu baaxeeg ni mu amee doomu adama ni mu ñàkkeeg ni mu doyee ni mu ñàkkee yërmande nga xam ne la ko bu la exploité ba nga màggat rek mun la demal soxlaatuma la ah xam ngeen ni kon yàlla gën a mën a fay de subhanahu wa taala yàlla mu ni maa leen di wërsëgal ak ñoom inna qatlahum rey gi ngeen rey gone yi day am riwaaya bu ñëw xataan kabira njaaxum gu rëy rëy rëy rëy ngeen def rey bakkan te rey bakkan moom musiba du ko gën a weesu dina ñëw léegi sunu borom mu ni wala taqrabu zina bu leen jege njaalo waxul bu leen ko def de bu leen ko jege borom xam-xam ñu ni kon def ga moom taxut di wax moom xool gaag laal gaag wéet gaag seetaan lu bon gaag ca ca baag ca journal baag ca télévision baag ca portable baag ca youtube baag fu mu mën a doon foo xam ne yaa ngi fay xool lu bon mbaa nga di ko déglu rek taqrabu zina ci la ci la ci dugg yéen ci yàlla bët day njaaloo tànk day njaaloo nopp day njaaloo loxo day njaaloo fay moo koy dëggal nga def musiba ja nag benn bu ci nekk am na bàkkaar bu ñu la cay bindal bu leen def njaaloo innahu moom njaaloo kaana dafa nekk faaxisatan di jëf ci ñaaw te bon wa saa bon na sabilan ak mujjantal gis nga yàlla de mooy kiy baalaate mooy gafuur mooy rahim waaye gis nga njaalo li ci nekk ci ay xeeti salte salte ak i tilim tilim bu la ko borom xam-xam yi jàppalee ba bàyyi la da ngay yëg ni ki xës ba njaalo moom tilim na tilimaay goo xamante ni fu mën a sangoo ba set moom dana danañu jaaxal moo tax ki gën a fegu ki gën a wattandiku muy ko góor ka muy ko jigéen ka kooka am na cër ci suñ borom boo xam ni subhanallahi alazim rawee na ko ki sàggan ka kenn xamut nu mu toll te daam lu valeur ci doomu aadama loo xam ne su la xasee rëcc est-ce que xam ngeen ne yonent yàlla beneen la yazni zani xiina yazni wa mu'min kii njaalo jamono bi muy njaalo gëmut yàlla Abu Hurayra nee na ngëm yàllaam day yëkkati ko ba tiim ko comme ni parasol tiimee borom mën na faa jaare mën naa dellusiwaat nag wóoru naka ma koo xamante nii moom mas na kaa def benn yoon ci dundam naka mook ko def ñaare yoon ñetti yoon ñeenti naka ma ko def métier nag paf même doomu aadama bu rëccilee ba def ko nga tuub ci jeexintalu suuratul furqaan yàlla mu ne bu ngeen tuubee day tuub gi dëggu te sell fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'aatihim xasanaat waaye ak jafe te li ci gën a metti nag ci xol mooy même boo tuubee yàlla baal la am na tàngooru mettit wuy des ci sa xol ndax jëf jooja saa boo ko xalaatee mbaa nga romb barab ba nga ko defee di nga yëg ak métti ci xol goo xam ne dafay daggate sa xol bi laa yazaalu bunyanuhum alladina banaw ribatan fi qulub ribatan illa an taqattaa qulubuhum maanaam day dem ba daanaka yow day dakkati sa sa sa sa sa xol bi te fekk sax amaana tuub nga ko ba pare waaye nag njaalo da di musiba ju rëy ndax yàlla bu ne faaxisatan lu bon te saltee ngoog wa saa yées na sabilan ak mujjantal waxuma la xeeti feebar yéen ca mën a jëlee waxuma la yàqute ga nga xam waxuma kersa gi doxoon sa diggante ak sa borom nga xotti ko waxuma la mbalaalum kiiraay mi nga xotti waxu yi ci nekk ci ay musiba bari na torop mbokk jullit ci loolu yaakaar naa leeraloon naa ko ca tafsiru suuratu nuur ca njaalokat lan mooy nekk atteem borom bi mu ni wala taqtulu nafsa bu leen rey bakkan allati harrama allahu bi nga xam ne yàlla daf ko xaraamal illa bil xaqi daa tege ci dëgg yonent yàlla bi nee na sallallahu deretu aji gëm yàlla du dagan mi tuur ko lu ñetti yëpp النفس بالنفس ري ني والزاني المحصن كي ام جكر نجالو ولا كي ام جبر نجالو والتارك لدينه المفارق للجماعه كي ني توبينا جننا تي الاسلام اسلام ري لو نكو كي نجالو فك دام جكر كي نجالو فك دا فام جبر سبحان الله مكي ياكارو لي ني بو الاسلام دون اتي تي جي ديفو ني بوبولاسيون سينيغال دو وانيكو bu islam doon àtte dégg naa ñu ngi naan treize millions xoma lan ba quatorze million jë affaire bi ma tudd loolu de population bi ma tudd loolu de parce que am na ñu fi nekk ñu wërta woon a nekk fi ne nii may wax ak yow nii man gëmuma ni population Sénégal man na mën na dix millions gëmuma ko de parce que koo xamante nii mi ngi fi nekk waaye existé wul parce que moom dañ ko waroon a rey fi ne islam a àttewul rek moo tax ma des fi ba léegi dama ni bu fekkonte ne lislaam mooy àtte population bi bu soobee yàlla dix millions du fa àgg maa la ko wax dix millions du fa àgg de parce que ku am soxna te njaalo dañ laa war a rey ku am borom kër njaalo dañ la war a rey ñooña ñu war a génne ca góor ñi bu ñu leen génnee ci jigéen ñi su mooy population bi dana wàññeeku torop waaw dana wàññeeku lool waaye nag sa bu yàlla suturaalee fii ba feeñoo mbaa reyuñ la mbaa dooruñ lay yar ah xëy na day man ngaa gën a góorgóorlu tuuti waaye yëgal ni day ah jëflante gi yaag sa borom a des de yaag sa borom yéen a des de dañ laa war a na rey rey ñu la dañ laa war a na caw caw ñu la ah xuma mandat dépôt ngeen koy xuma mandat dépôt na ci sa kaw de buñ la waree rey rey ñu la ñu war laa caw caw ñu la mandat dépôt dëpp na sa kaw xool waa dina ndeysaan diw dañ koo dóor mandat mandat dare mandat nangam mandat nangam yooyu ñuy tiitee te fekk mandat bu ko gën a garaaw a ngi nii bu ñu leen a këpp ci sa kaw mooy yow waroon nga fay jóge yow sunu borom mu ni wa qutila mazluman képp koo xam dañ koo rey fekk dañ koo tooñ faqad ja'alna def nañ li waliyihi ka ko féete kilifa sultaana moom mooy yeeyo ab atteem moo koy méngoo ay mbiram mooy sultaan mooy méngoo mbiram ci misaal su fekkee doom lañu rey baayam a ca gën a yey ak yaayam magam ñi ko gën a jege su fekkent ni ñooñu amoon ñu jege maanaam ki nga xam moo gën a nekk kilifa ci aw askanam kooku mooy wali mooy sultaan ba moo tax Abdullah ibn Abbas bu daan tafsir aaya ji day wax ne ah Muawiya de ak xilaafaam yaakaar naa ko Muawiya mu ni ak nekk xilaafaam ak am euh, nekk sultaan nekk xila amiram yaakaar naa ñu ni ko lu tax mu ne ndax xam ngeen Muawiya moo nekkoon wali bi Ousmane Fato moo fa nekkoon kilifa gu ko sës bokk ak moom war a too deretam ku ko rey coow yooyu nañ ko rey duñ ko rey fekk Ali ibn Abi Talib moo nekkoon amirul muminin ku ne xam ne ne Ali reyu ko loolu mooy li xalaatu ko sax loolu ko kenn waru ko xalaat sax waaye ña ko rey comme Ali mooy président moo war na jóg taxaw ci ñu xam ñan la ñu defar ko comme mbirum gouvernement la mbirum euh, déggal mbirum imaara la coow li bari na ci bees bees bi kii daa bëgg kut kut affaire bi nañ ko régler kut kut kennam mooy nañ def ndànk diggante nañ ko régler kut kut ak nañ def ndànk ak réeroo am na war naa mën a am fu réeréew googu jur ba Muawiya ak Ali seen diggante na mu war a mel seytaane përëpitoo ca foca ila axiri donte Muawiya lam doon wax lu leer la kii maay wàlli yóm deretam dama ko war ci lijjanti kan moo ko rey nañ nañ ma ko jox ñu rey leen ca la mbir ya àggee fa mu yegg ba lay xew-xew donte ñoom ñëpp ca saxaaba ya nag moom ak mbaax lañ leen di seedeel njuumte ya amoon suñu borom jéggal na leen ko bu soobee yàlla ña nga àjjana asalaamaaleykum kon sunu borom mu ni ki nga xam ne dañ koo rey fekk mu tooñ faqat jaal na li wali sultaana kooku mooy waliyam fala yusrif nee na bu mu ëppal fil qatli ca rey ga muy rey bi maana waxuñu la nga ñu rey nga daggate nga rey ba daggate yow déedéet loolu mooy fala yusrif fil qatli ñu rey yow nga rey ba daggate li nga def daa bu ñu la jamee jamal ñu la daggee sa nopp daggal noppam buñ la defee nanga bu fekkee dafa rey rey ko waaye nag nga def ba def lu ëpp nag fala yusrif bu mu ëppal fil xat li ca rey ga muy rey ndax innahu kaanamaan mansuura suñu borom mu ni ku yàlla defal am dimbal na maanaam yàlla moo koy dimbali parce que dañ kaa tooñ te képp kuñ tooñ suñu borom dana ko dimbali kon suñu rayee bakkan te fekk dañ koo tay ka ko rey moom waliyu ki ñu rey mooy tànn benn ci yii nañ ko rey dangaa ngaa rey nan la rey da nan la rey yaakaar naa jamono yii paase yële yéen a ngi dégg ci Arabie Saoudi lu fa xew loo xam ne duñ wax mosu faa xew waaye gëj na faa xew la ñuy wax ku rey bakkan te bokk ci càllaleeg buur bokk ci càllale buur famille prince bi nga xamante ni ci ñi war donn gi ca la bokk nga xam ne ñooñu kenn du leen laal waliyum kañu rey kalaame ko fa mbaxana nekkee benn fa ñuy àttee ñu def ay jéego gis nga balaa ñu ko rey façon kilifa gune pour wan nañu la kii fi nekk nii ku mat a ñaanal la ku dëgër la de macha ay kilifa def nañ lu ne gaaral nañ way juru xale bi faatu ay millions yi millions xanaa milliards sax laay wax xam nga ni prince moom du gaaral ay millions ay milliards lay gaaral façon kilifa gu nu yaakaar ni buñ demee def intervention dana nangu def nañ ko papay xale bi ni mukk dafa rey nañ ko rey mu jeex gis nga am na ñu ko fekkee si ñoo xam ay kilifa lañ woon yu gëm yàlla ba noppi sax dañ doon jooy yu gëm yàlla xam ni lii mooy àtte bi lislaam waaye dañ doon jooy parce que mbir mi dafa tiis dafa raglu kii kilifa la ki ñuy rey tey kilifa la te ku baax la nag ku baax la kilifa la waaye juum na ba rey nit mbir mi amul sentiment àtte yàlla rek baaleel mu ni baalewu ma nan ko rey dañ koo mujj rey lii may wax nii yàggut kon ci ngay xam ni attib lislaam amul kii ma bokk ci yax bu di jëg yax bu sew ak yax bu waaj a dijji déedéet yooyu amul ci lislaam borom bi mu ni wala taqrabu bu leen jege maalal yatiimi alalu jirim illa billati ahsan lu dul nam gën a rafetee doom ji baayam dafa faatu ñu dénk la alal ji wala bin miraasee yow yaay magu magum kër gi wala magum famille bi wala nuñ ko mën a tuddee ñu dénk la alal ji wala boog nu mën a demee daal ba gone gi moom mën a gula jëfandikoo alalam yéen a ngi fàttaliku ci leeral guñ doon leeral ci tàmbali bi suratu nisa ya ca suñ borom tudd ci wàllu miraas ak ku ñuy jox alal ji ak ka koy téyeg lan la ca dagana lekk ak ba keroog muy dem ba toll ci nag xale bi nekk waxambaane jël alalam alal jirim bul ko jege illa billati ahsan billati ahsan borom xam-xam mu ñu ni mooy doomu jiitle te fekk baayam daa faatu yaayam àndaale alalam ji teg ko ci sa loxo ci misaal wala nu mu mën a doon daal ba alal ji ñëw ci yow waxuñu bul te lekk un franc waxuñu loolu de illa billati hiya ahsan lañ wax billati hiya ahsan mooy xale bi ñu ngi ko dencal alalam waaye kër gi kat dépense amu fi ñu coppati ca as tuut lu tolloog li ñu dépensé def ci loolu du am bàkkaar bi la ci yaasali ndax moom ca lay lekkaale te it nag ñi ko yor sañ nañ ci loolu wa illa am na benn jafe-jafe bu am ñu gis ni kat lii buñ ci jëlee ci alal ji du wàññi dara loo xam ne lu farata la nag ñu def ko ci loolu bi la ci ahsan la waaye nag alal ji ñu fexe ba mu bañ a ba mu bañ a toog benn place di jeex rek mooy lan alal ji bañ a saaw xale bi doon na ñaata ñu ne doon na deux millions cinq 2 millions 500 ñi tek ko benn place rek sa bu feebare ñu dem jël ci ordonnance su tabaski ñu dundal ko ci yére bu yàggee bu màggee du fekk dara di moo tax borom xam dañuy waxee dundal leen alal ja mooy nañ ko dugal ci commerce wala yu ni mel ci misaal waaji su fekkoon dafa jël ko jëndee ko ay xar jëndee koy nag jëndee koy gëleem wala mu dem chargé ko magasin wala yu ni mel nga xam ne alal ja day màgg ngir balaa gone gee màgg alal ji njëkk koo màgg gis nga ko dundul l'islam yaa xamut l'islam waaye islam am na programmation boo xam ni daanaka lépp la préparé yow yaa xam wala nga ñàkk xam rek sunu borom ni xatta yabluga ashuddahu ba keroog xale bi nekk waxambaane soo demee ci suurtu nisa ci paas bu njëkk ba sunu borom ma ngay nettali di wane ne ah buñ demee nag ba nekk ay waxambaane mën a jël seen alal nag xam seen ndeyjoor xam seen càmmoñ mën a gérer seen alal jox leen moo tax mu ne wala am sufaha amwalakum ki nga xam ne moom dafa dese dafa xayadi dafa wayadi am na xëndum la wala boog màggagut ba àgg ci mën a gérer ay boppam suñu borom mu ne bu leen leen jox seen alal téye leen ko ngeen di gérer leen ko gis nga loolu nag boo seet seetloo tey jii benn waay day faatu bàyyi ay millions ñu ne nañ jël ci million yi luñ ko dajalee ñaari nag loola bàkkaar la parce que l'islam santaane wut nañ ko dajal ba ñuy jël ci alalam di ko ca dajal loolu bàkkaar la xam nga l'islam lu wax nañ ko fayal ay borom muy benn ndax dénkaane woon na ndax nee woon na su ma dee jàkk ja na ngeen ma fa defal cinq cent mille sama alal am na ci droit fii alal ci mat na sulus ci misaal koo xam ne bàyyi na un million cinq cent sañ na ni cinq cent mille yi na ngeen ma ko dugal mooy sulus bi boo xaajee alal ñetti xaaj ñetteel ba sañ nga caa wax la neex bu doon mag ñu yàgg ña fii ci réew mi dangay gis ku dund ak sa mag sa mag amul doom wala sa rak amul doom wala yu demee noonu wala sa jigéen wala koo xam ne yaakaar nga ni boo ko bàyyi gannaaw mu tumuranke nga ni bâtiment bii ci kër gi suma ma may naa ko bàyyi diw wala yaay diw kooku bu ñuy miraas kenn du ko ca boole waaye nag suñu calculer fekk ëpp na solutu alal ja loola du dagan su ko defee kon borom bi subhanahu wa taala mu ni euh, fii ak xale bi jëmut mag nee nañ ko téyel alalam bu fekkente ni waa ji dafay dañ koy war a miraas dañ koy war a miraas <coughs> baram xam-xam yi dañuy wax ne bu fekkee miraas kat bi daa ñëw mu ne ah, ñu fay ma <coughs> te amuñ keneen ku ko mën a miraas te duñ ko mën a fay buñ ko mënee fay ci seen alal moo gën waaye suñ ko ci mënta fay nag ñu fay ko ci alalu waa ji loolu dagan na waaye yu bare bare bari ci ay xeeti cër ay gënaleeg baas yàgg sees yaag nag yaag loola ñu yëpp ñu génne ci alal ji dañoo tooñ beneen bi ci des fi mu nekk nii buñ ñëwoon kër gi dañ koy jaay waa kër gi yëpp nangu nañ ñu jaay këru famille benn waaye mu ne nanguwuma kenn du ko jaay parce que ak xam la ko naxtaan donc gis nga foofu kenn ci kenn du qaadi du leneen kenn tanewu la ci naxtaan rek bam nangu waaye fi mu ne nii bu fukki nit yeeg juróom ni woon ñun ñëpp doom bàyyi yeeg doomi nday yëpp nangu nañ ñu jaay kër gi kenn mu ne nanguwuma am na ca droit parce que ak xam la ci kër gi jaayuñu foofu nag naxante dong lañ mën a def ba am lañ bëgg yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne mbokk jullit yi war nañ koo bàyyi xel sunu borom mu ni. Mhm. yenn ci waroon xam dañu su fekkente ni illa bi mu joxe yenn na maanaam am na ca droit parce que tamit buñ bàyyi xel ni nit bu waxee dara xam nga naxtaan geeg naxat gi dama ko dama ko dëxëñ noonu rek waaye problème bi mooy su fekkonte ni xaado yi dafa am qaadi mooy kii àtte bu ñëwee dañ naan waaw ñu ne dañoo bëgg a miraas diw sàngam mii nee na moom duñ jaay kër gi xaadi lu tëb tëb rek ni am na am na ci droit de déedéet da koy woow mu ñëw mu ne ko lu tax nga wax li nga wax xam nga foofu nag nit ki mën naa wax illa bu yenu maanaa parce que kenn xamut nag ku nekk dañu bu fekkente ni illa bu yenuwut maanaa la waaw qaadi day weñ loxoom comme qaadi amut nag borom xam-xam ñu ne imam mën na ko def wala kilifa su fekkente ne lam lam joxe nag waxi waxi waxi waxi jug ñor la ah su boobaa nag moom dañuy déglu ay waxam ndax am na ci droit ndax léeg nit wax wax ju ñor leen waxee waxi naxas ak kandang borom bi subhanahu wa mu ni euh, waaw awfu na ngeen matal bil ahdi ci ay dige inna la ahda dige yeeg kollëre yeeg fasante yi de kaana masulan yàlla daf leen koy laaj loo dige boo ko ma ne nga ko def la waajo doon wax sëñ ba naa ko yow moom loo wax di nga ko def mu ni ko déet déet loolu moom yàlla koo xam lu mu wax dana ko def yàlla dong la lu ma wax daal nar naa moo tax olof yi niñ looy digga nekk loo nar looy waxi na nekk lool nar boo ko defut doom am bàkkaar parce que naroon nga ko wax nga insha allah borom bi subhanahu wa taala mu ni kon dee matal ay dige ak i déelante ndax loola kat yàlla daf la koy laaj yawmal qiyaam yent yàlla bi nee na laa imaana liman laa amaanata lahu ku amul kóolu kóolëre amul imaan wala diina liman man la ahada la koo xamante ni maanaam fasante kollëre wala bu diggante ay li muy diggante du ko sàmm kooku amul diine loolu musiba ju rëy rëy rëy la sunu borom mu ni wa awful kayla na ngeen matal natt yi wa zinu te ngeen di iza kiltum bu ngeen nattee wasinu te na ngeen di peese bil qistaasil mustaqim ci balance yu jub te mat xam ngeen peese ak natt bokkuñu peese ak natt bokkuñu am na loo xam dañ koy natt am na loo xam dañ koo peese am loo xam mënees na koo natt mënees na koo peese kon natt am na peese am na waaye peese ak natt yépp sunu borom yi na ngeen ko def ci lu mat gisoon ngeen ca waylun lil mutaffin na ida kaalu ala nas yastawfuun nu borom ni dalika loolu day xayrun moo gën wa ahsanu moo gën a rafet tawilan ak firin maanaam ak mujjantal rek la nga xamante ni fa mu mujj maanaam mbir ma bu soppar ñi kaw fa mu nar a mujj sunu borom mu ni mujjantal ga de la gën ci yéen mooy nit ki nekk ku matal la nga xamante ni moom lay peese waaye mu nekk ku matal timit la nga xamante ni moom mooy ab natt dalika xayrun looloo gën ci yéen واحسن موغنا في التاويل فمي مج تاويل غوغو ابن كثير من كوتيك مانام ثوابا اك عاقبه موي مجنتال غا خامتيني فا كوي فايي او يو سونو ولا تقف نغال لا واي ما ليس لك به علم لو خامني امو تي خام خام امو تي خام boo demee dama yaakaar ni defe naa ni amaan na mën naa am yooyu di waxi dara yooyu kenn du ci tabaxum àtte moo ko jullit yi saa boo déggee xabaar comme ni ngeen ko gisee woon ca tafsir suratul xujuraat teeyal ah ma ne ni nga ko déggee noonu laa ko déggee man de amu ci dara lu ma leer wax dëgg yàlla nga yam foofu amaan na sax yow mi wax loolu sax li nga ci informé sax mo te jamono bi ñu toll surtout jamono bi ñu toll moo ko jullit jamono bii gis nga waxuma la sax infor man ma nit ñi bu ñu ay information rajo ak télé ak bitim waxuma yooyu sax laa wax gis nga ci suñu jëflante diggante nit ak nit rek diw ak diw xarit ak xarit jëkkër ak jabar jabar ak jëkkër yii xew léeg-léeg ñu nettali la loo xam ni wallahi la am ak lañ la nettali soree nañ comme fukki mbubb ak yaramu neen nga wax ca daal di lakk dëkk bi am ca bakkaar fekk teeyal boo waxut du tax nga am bàkkaar du du tax nga du tee nga dund de dee leerlu information boo dégg bul ca wax lu dul da ngaa leerlu tey jii ñaata information ngeen dégg fekk affaire bu dëgg fekk dëgg la sax waaye niñ ko waxee demewut noonu ila axirihi wala taqf bul wax mukk maa laysa laka bihi ilmu loo xam ne amoo ca xam-xam inna samaa sa dégg-dégg bi wal basara sa gis gi wal fuaada sa xol bi kullu ulaayika yii yépp kaana anku masulan yëgal ni am nañ compte rendu bu ñuy jox suñu borom yàlla subhanahu wa taala allahu akbar hmm? mbokk julit yi lii jar naa xalaat de ali ibn abi talha nee na abdullah ibn abbas nee na laa taqul kon bul wax al awfi mu ni mbir moo xam leeru la bu ca dugg muhammad ibn hanafiya mu ni bul seede loo xam ne ay caaxaan la xataale na ne bul ni gis naa te fekk gisoo bu ni dégg naa fekk déggoo bul ni xam naa te fekk xaw ma da ngay dégg koy waxal mu ni non man xam naa ni mu demee yëpp te fekk yàlla xam ne ne xamul sax ni mu demee da dégg xam ngeen ñun dañuy ja dañuy juum léeg-léeg da ngay dégg non xam naa ni mu demee yëpp fekk déedéet demee da nga naan dégg naa ni gis nga yooyu baat ni mu sewee ci ñun duñ ci bàyyi xel xam naa ni mu demee yëpp fekk xamoo ni mu demee yëpp dangaa dégg ni mu demee yëpp waaye xamoo ko dégg naa ak xam naa bokkuñu foog naa ak yaakaar naa bokkuñu yonent yàlla bi nee na góor gee bon nu muy gànnaayoo sa zaamu mooy yaakaar naa ni gaa yi yaakaar nañ ni boo demee daal affaire bi nii la war a demee gis nga yonent yàlla bi nee na ki gën a mën a wax lu dul dëgg mooy ki nga xam day gis loo ba tam lu mu gisul man kay maa ko fekkee te fekkewu ko man kay maa ko gis te fekk gisu ko <coughs> gis nga mi ngi noonu sunu borom bu ni <coughs> kullu ulaayika yii yëpp kaana anhu masulan yowma alqiyama sunu borom dana ko laaj nopp buñ paree dem ci xol bi buñ paree dem ci làmmiñ bi ila axirihi moo tax mbokk jullit looy wax na nekk loo xam sunu borom ni wala tamshi fil ardi marahan bul dog ci kaw suuf si di ngand ngandlu di bondee ka jekkas ndikoo tooji tànk ka cappi cappi sunu borom ni déedéet bul ko def de innaka yow day lan taxriqa al mu noquti suuf si de sa boo nga sol dàll yi doon fukki kilo ak juróomit de mënoo xuti suuf si de suuf si mënoo koo xuti di sa kër bàyyi fi la ci kaw suuf si la tegewoon ba nga xëy juddoo fi di sa kër bàyyi ci kaw suuf si lañ ko samp ba nga xëy juddoo fi bu yeboo nga jënd dàll yuy peese fukki kilo ak juróom waaye innaka lam taxriqal ard suuf si munoo ko xuti de yonent bi neena na sallallahu alayhi wa xeet yu yàgg ya amna ben way bu sol ben yére yére bi rafet rek mu sol ay dal affaire bi jayu rek muy commencer keud souf ci bonde sunu borom daal ni suuf si xotteekul tëmbaleel ma ko ci biir mu ni suuf si daal di xotteeku rek ba ba ba ni bap ci bir nee fi ba yowmal qiyam ma ngay dem àggagul fam jëm ba yowmal qiyam fa huwa yatajaljalu fiha ila yowmal qiyam wala allakum tatadakkaruna qissata qarun ak sunu borom ni fa khasafna bihi wa bi daarihi yàlla mu ni ma ni suuf nga yeet suuf nga yeet xaaru naa ko njabootam ni pëtëx ca biir fa ma kaana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah moo tax gis nga léeg-léeg nga gis kuy bondeeka tiitaru subhanallah da ngay xam ni yàlla la ahada asbara allah la yonent bi waxoon ku dàq muñ yàlla amul subhanahu wa taala ndax li ngay def am ñu ko defoon alkande dikkal leen bari nañ lool sunu borom mu ni innaka yow de lan taxriqa al mënoo këdd suuf si ba xotti ko walan tablugal jibaala tuula mënoo bondee ko yuqamti koo ko ndami mbagg ba tolloog montagne yi moo tax ab yar ak am solo ci doomu aadama sunu borom mu ni kullu dalika yii ngeen gis yépp kaana sayyi'uhu ñaawteef wa ca nekk am na qiraa nag buy wax kaana sayyi'atan loolu am na riwaaya qiraa boo xam noonu la jànge kullu dalika kaana sayyi'atan inda rabbika makruha am na ci qurra yi ñoo xam loolu la ñuy jàng kullu dalika yooyu ngeen dégg yëpp kaana dafa nekk sayyi'atan ñaawteef woo xam ne inda rabbika fa sot borom yàlla makruhan lu ñu sib la lu ñu bañ la wala ba kullu loolu lépp kaana dafa nekk sayyi'uhu ak ñaawteefam inda rabbika fa sot borom yàlla makruhan nekk lu ñu sib loo xam ne borom bi da koy tere subhanahu wa nu ngi ñaan suñu borom mu tàggat ñu ci yi mu digle bañ man koo def waaye mu soril ñu yi mu tere bañ man ko bàyyi wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain